ànd ba ànd jeex ànd ak ku ragal yàlla moo ci gën looloo waral ñi bëgg seeni mbir faju ànd nañoo ak Serigne Abdoul Aziz Diaw yàgg naa leen koo wax borom xalima gidul laal suuf macha allah laal leen bant ana ñi ñàkk yaakaar ci seeni mbir ñi am jafe-jafe àddina ba yaakaar ni dootul jeex ñi am gàllankoori àddina te ay liggéey teg leen ko daw leen seete Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi nekk ci barab ñu dëkke laa xeex di la gasal di la suulal Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg loo xam ni képp ku la liggéey mbaamu suulal la daañu la nettalil ay mbiram mhm. bëgg ku la dugal xalwatu Serigne Abdoul Aziz Diaw moo ma ci doy mi ngeek ay sangat yu yéeme yu doy waar kaaraange bayre ubbeeku gàllaaju kër ñàkk ab sëy ku ay mbiram am gàllankoor jigéen ju am jafe-jafe ci sa biir néegu sëy góor gu tële ci sa biir néegu sëy kuy liggéenti ay kayit ci biir réew meeg bitim réew mu tële ticc àdduna yépp Serigne Abdoul Aziz jaw lañ ciy waxtaanee ay mbiri mag la yor de maa la ko wax de ma nga fële ca Thiès Madinatu Rahma di quartier Serigne Abdoul Aziz yow mi yëg ak njaaxle njàqare ci sa yaram ngeen mën koo jot ci 77 560 891 87 63 wala 78 469 92 92. lu fay xew appartement de lu fay xew. fay ñoo gën mus ñëpp. ndey njaay fàkki ne ah ah ah ah, ah, ah. musikul di mbala fa ñoom minha, fakki ni di mbalante do ci dellu gi kan puut. Diop yaay puuy. parce que li tax ma woo leen xam ngeen ko samay kilifa ngeen yéen ñaan ñëpp te fii xale amu fi am na yoo xam ne rafetul parce que mënuma imaginer tëdd ak sama soxna trois heures quatre heures du matin ngeen may fëgg am na yoo xam rafetul sax nit ki duñ la may lépp nga jël lépp te kenn ku ne jox naa la cër. jo kër gi sa man buma ñëwé fat la xamuma la musuma la gis hmm. sama soxna rek nga xamantel ma fat la ci kër nga ñëw di ma fëgg naan ma ay yal na nga yóom yal na nga xawma lan ak hmm. lan lool rafetul jullit du du ñaanal borom jullit sax yenn ni am yoo xamni rafetul fu mais man lu may def rek dama ciy jaamu yàlla lépp ba naa ko ci loxo yàlla euh, kaaw yow tamit kii gan la rek danga ko war a jàppale ak lu mën a xew xajoo ko rek amaana sax du fi yàgg parce que yéen ñaar yéen bokk fii yéen fi tëdd mën ngeen ko lijjanti te kenn du ci jot te tamit coow warul am ci kër gi abalaay président mën na xam nga ma si kër bi yàgg naa tëdd fii est-ce que mus naa ñëw ma fekk la rek nga toog moo fogg la musuma la fogg même bu fekkee te sax yaa ngi fubal musuma la fogg duma la lijjan parce que xam naa say te ngay def ay tàmmoor yooyu yëpp day nekk si sax eh man waxuma ak yow. moom fii. yow kay benn muy xeeñ derbe dafa nankaral. man au-delà mu ngi xeeñ deru béy fan la booy ngi xeeñ deru béy ma ne ko demal nga sangu mu ne ma sa yoon nekkul fii mu fekk ma fii si kanam mu puus mu ne ma puusal si ginnaaw mu puus loolu yëpp man di digéré naa ko muñ naa ko hmm? dem na summi tubaay bi mu tark laayu man muñ naa sax loolu man waaw ah, mu ko noonu mais li ma naqari du loolu ah muy mel ni koy naka si guerre Poutine yi tol tol tol yow la quatre fois si guddi bi su ma ko xoolee muy wur des fois mu am ay missiles yoo xam ne tey man munu ma ko supporter munu ma ko supporter ma yee ko nag ma ne eh eh nekkuloo con nit nga nekkuloo con xoolal li ngay nelaw muy jógati am lu muy wax man abalaay man daal xam nga lan la man ma fanaan si biti sax moo ma gën a tedd ak نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا قول ولا قوة إلا بالله الرجيم يعني يلا مش التقام أنا كيف خم غوب غوب غوب فاتا غوب أي من غوب لفل لفل لا لا لا لا لا يوافق لا يا كارنا man xamuma waaye ki ngay fanaanoon kii tax fi mu ne nii bu guddee nga defa ni jot nga fépp hmm. na nga déglu de boo bu ma waxatee boo ma nee puutu waxuma la njóob yow xam nga nu may njóob waxuma du digg na génn ci saa waay samay wax yow man sama fii moo ko wokkee rek maa ngi sa kaw ah, wax dafa war a rafet waaye bonoon na di ma fëgg di ma wax naka sudul noonu te yow kii ngay sëyal tey jii seen baay maa ko yoroon jàppale ko taxaw ba tey ngeen mën na jot ci doom yi man na duma fi doxandéem juróomi fan rek laa fi def man championnat laa fi ñëw nun hivernat loolu def nun ude yi sa jabar moo la waroon leeral li ñu fi wut ci ñun. championnat uude. man ëpp naa ñu may tëral ci ay saal. da damay ñëw ndomb jël na ci samay ndomb yow. dañoo am benn bi mooy championnat bi ñu ne bu bëggee jël euh, euh, premier bu guddee doo fanaanoo tubéy taati neen ngay fanaanoo pour pour pour liggéey li jënd mën a sotti yaareel ba mooy. na ko nangu rek waaye war ma woon a fanaanoo kenn beneen bi ci tool mi nga naa ma ci Poutine nag ci nangam nangam xanaa xam wax ju ñaaw ju ne mi ngi ma koy wax may nangu waaye moom mii feebar bi mu yor boobu gën a bon ndax moom lii génn ci moom kenn du ko dégg tabarki yonent bi kenn mënu fee nooy yi loolu lépp ma nangu ko rek sama ñaata ndoom maa dagg ci guddi gi fi na nga déglu rek xamandi nga ni par ñep de ko lool du danse mais li danse moy li kenn du dégg te mu mel ni mi ci li ruuf ci suuf ak ah, kii noonu lay fanaane rax ci dolli nak li tax defuma ko dara ma jubal ci yow di la yee dani ma moom mii ndeyam moo nam ah eh eh loolu bul dugg foofu sa yoon nekkul fof waxal waxu sa soxla fi nga wara wax waxal li nga wara wax do dug suñu affaire bi privé ndayam bayam papa magam sa yoon nekkul foofu waaw abalaay abalaay moom um xéewi xaala kii day wax lu ko neex lay wax waaw xéewi xaala mooy lan may wax muy wax ne kii jum mooy moo ko defal remise mbaka jum moo la defal remise kàddu bi na ma bay mbaka defalu ko dara na ma bay foo fi fi mu wax foofu ma gën a naqari ndax diplôme yi taxoon yëpp nu ñëw ci championnat bi daf ma yee foo xam ne daanaka tàllal naa sama loxo nii nii na ma Ameth Diop fal mbëkk moo war a wuyu Mbacke ju mar a jël di diplôme bi teg ko ci samay loxo moom mi foofa la ma yeewee te yee na ma yeegoo xam ni xaw ma nu ma doon def jékki-jékki naa sama yii di yëngatu comme ndeye ma nàmp jox sa ndey nag loolu lay ndamoo fii ni ma sa bopp la sa deret la sa lépp la man xam naa ne. Ndiol Fall bul tudd suñu sama yaay bul tudd sama yaay. loolu nga wax bul wax sama yaay. mul tudd sama yaay ah, may ma sa yoon nekkul foofu loolu yëpp après dinañ ko lu ñuy waxtaanee la ndey a nàmp ak yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee après waaw waaw baax na yàlla baax na li ma lay wax rek mooy bopp bi bàyyi bañ ci kër gi mbëkk bi waaw kon sa famille la kii non non sama ni ki ne wax na ma sa bopp bi mbëkk bi bopp bi tooke la day lox dimbali ma rek bu fi mbëkk commencé lox rek bopp bi day coow waxtaan leen yéen ñaar day lox bëggatuma fi dégg ci day lox bu commencé lox rek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 réeroo des fois dafay am kër gi daal def ko comme sa kër waaw comme ni nga def rek jël say tànk teg ci kaw taabul bi loolu yëpp comme sa kër la rek waaw <laughs> defal lu la neex euh, di la remercier aussi parce que man miinuma la Chacha na expliqué na ma li nga doon ci ñun <coughs> te nit ku baax rek moo mën loolu nit nekk ci ay jafe-jafe nga jàppale ko dimbale ko te yàlla rek tax loolu ba nga koy def sax xam naa ne ay liir lañu ndax man fàttalikuwuma ko <laughs> waaye tey jii sama papa su fi nekkoon xam naa ne <laughs> su ko mënoon dina la tuddee doom. danañ ma tegal ñaari tànk yi ci kaw xam nga lu tax ma def lii. Ah. mag ñu njëkk ña bala nu koo laal dañ koy wax xool ndax di nga leen fa fekk mm. waaye lii war na ne ni sañ naa leen a boot di julli. <laughs> dëgg la dëgg la moom kay bi dëgërul waaye eh, awul solo. weer beeg yow ganaar yeeg nen yi ci kër gi may borom ndax ka ca àllaaxira bu ñëwaatoon tey nii la ma koy waxee yaa yilif lépp yal yàlla defal la jàmm sax la ci sa sëy bii aar la nag ni mu aare reenu ñam ci biir suuf ba max du ca man dara ndey Penda Njaay na ngeen def boole ko di taqamtiku ani yar ani kilifa te am na loo xam ni nit du ko def ba pare di ko wax waaye day jaadu léeg-léeg nag nit ki wax bëgguma woon a wax sax nag ndax fi ma doore waaye dafay baax nga nettali ba ca kaw ñu xam kii wax mooy kenn man jëm ji di wax di Amet Diop Fall mbeuk jam jallo jaji Fall ma sama ndene Fall ndene dem bak ndene maram jallo ndene yasin si nuuj tëpp yaaka bu ya di wal ya di maf ñandu ree neex jala samam yegge suuf melni koy def election dañ koy wax budé da nga dugg si fekk sa bay tok nga wara taxaw wala sa mam wala sa najay suk waye defoko nday ndey kenn du xam lepp wax lepp nday kenn najay mo ne tollu na fi jamono yéen ñi bu ngeen jëlee pepp dugal ci seen biir waxtu añ bu jotee dañ leen a wëri ji bu nu ma sànni tan dañ dañ dañ dañ dañ salimtoo min na rahmaan salimtoo bu ma sànni yuuxu ci boolu jàmbur yi fa leen di jëlee seeni loxo waaw waaw waaw diet ko leeral rek seen bàyyi ni yàgg fi mu toog amu leen lu ngeen lekk te yow moom mii li ci gën a bon mooy taati neen la daan dem di lekkaani dañ koy wax ma taxaw rek ni lii dinaa ko dindi ci ngéyeen gi bis ba ma ñë njëkkee taxaw ni du ngeen lekkaani keroog xam nga lu ngeen añee ñebbe taati ñebbe yi laa wut ak mbool mu bari sa baay ñu ne bëri salim tuumi naa la ah, bi nga déparé dama laa kuusanu nga wàññeeku ma taati ñebbe ji ne tey fii ngeen di añee boole kook yor benn néeg rek dugal ci seen ndey seen baay may fanaan ci biti dama ni woon duma wax waaye taal bu tëwee tàkk côté bu ne loon koy uppee fii jaar naa fa ak yéen lépp rek ngeen nga xam kii wax kan la dangay wax wax yaradiku yow yaradiku ci yow la njëkke manque manque de respect ak manque savoir vivre ci yow la njëkke ndax ree weesu nga jël sa tànk teg ko fii mm, mm, mm, eh, amul ji amul la damay wax magum jëm bu toll ni yow nga ñëw teg nii sa tànk pour lan la lii nga ñu defal ba pare di ko wax moog zéro yam ndax boobu ba tey yaa eh, nga ñëwee ni tépp ci kër gi ba tey yaa koy wax kii moo fekkewul woon kon xamal nga kot kon yow li nga def yëpp ndax saay na tiyaaba ñu ci amoon yàlla effacé na ko ba mu seddu ndax danga koo wax yow yow sa dungu maa ngi koy doog wax ci kanamu kii ni noonu nga daan demee di lekkaani te lii cax la xamoon naa ne di nga ci tontu boo déggee ñu gone danga koy xaar ca taatu ndaa la maa wékk sama joxoñ di xaar lu ciy sa xalaat waaye kii bi ma tegee lii nee na ma xam ni yaa yilif kër gi moo tax nga mocc sa tànk ci kaw cax bi des ba tey nga ñëw di tudd réewande yaa ko yàq yaa yëmbee siil ndey yaay waga bon man nga naan dama réew wax nga ko sa bàyyi ba ca laaxira te nag dafa jot nag ma leeral yéen ñi ni ngeen bokkee daanaka sa ndey leen nàmpal mook ndey sooda mii noonaan ko sasaa te bokk na ci li leen yàq ñëw ci dëkk bi ku ne soppi saw tuuf ndey sooda njaay noona ko sasaa ak sosoo ku ne di fen di wuti bànneex man champion naa ma indi damay dem gan yomb naa muñal de yow nag kontaan naa ci yow yàlla naa jot samay diplôme samay diplôme uude yàlla naa ko jot delo jam ci sama ëw ga ndey sax di ngeen ni mom jarul wax ndax ku wéet xam sa mm-hmm. ma sha allah sama papa ba ca alakhir su yorulo ni jangal nañu diine ak lislaam koo koy gay bërëm bii gay faali ndeera borom maamu dammeel borom maamu elimani ah. ma sha allah ñun da ay njabootam ñaanal nañ ko seen bay mën ngeen ko tag ci lu ne ba dess diine xulaawam si bi rabbi naas la daan jullee tisbaar moom la daan jullee suba moom la daan jullee takkusaan bi rabbi naas la mënoon te bu départ bu ne xulaawus bi rabbi naas bu ñëwee ba ci maalik maa ngi koy dimbal ni ko naas mu ne ilaa yi ma ni ko ma ko naas yi mu jigi ma ne ko baax del jeexale naas kon man ama na fu ma jaar ak yéen ak seen bàyyi bu lu ko yàggal yomal xeyam ci buntu ba naas gi ci lay bokk bu fekkee l'islam ngeen ni dama foofa moom effacé leen fa seen turu bàyyi wax dëgg dama leen di wax rek yow papa ba dafay jaadu nit ku ne la nga ko war a wax mooy kan. te nag damay magom xamoon naa ko te dama bëgg nga doon kilifa ci kër gi nag yow ginnaaw yaa ngi sëy ñii yaay seen kilifa moom bëggoon nga wëlbatiku kilifteef boobu nga jox ma ko ma jiite la na mel ni ka dem laa xëy juratu leen maa leen jur. papa men dafa dëgër te kii lañ nàmp dama koo tàqamti ko. dëgg la yow gis nga yow gis nga yow. fi ne ñi ñuy jur sax mooy raw yow nàmpatal ak soow ak yëpp yéen ay saytaane ngeen dimbali leen di yomb ngeen tegale noonu di fen kenn mel ne ay bas contention sim mel na meew dafa dëgër meew dafa dëgër seen bàyyi meew moom daa tax muy wax ak li ma daj ci moom. seen bàyyi rawoon salaan boo ko laalee mu jooy munu ma sax na roppaloo di xeex bu ma jiitu buñ ne ko a ko bañ mu en arrière saa ginnaaw ma ñëw taxaw ni ko reculer la maa jël xeex ba xeex naa fa ba nu xotti sama caaye

sama rakyatnya tapi di sini mu coba nggak mah Aki mah sama gue ini, ini, sama doro sama sih wow ah, masya ah. ya, hmm, eh. ya, Allah masya Allah kontan nah kontan sih nah apa atak kagut wow, waaw takkagul mais me que kayaknya ñaara nekk kay te loolu la ñuy sabab ñun ñëpp nekk bi wóorul yow da ngaa fàtte laa fi baax lan la waaye loolu la ñuy ñaan yàlla rek ñaan yàlla loolu muhammad insha allah insha allah <laughs> ñu nii de xale bu baax la. ndeysaan tee na tànkam. Mm. waaw dexul waxul warul ci mbedd yi di compter pont lampe. Mm. kenn mësul ñëw ci kër gi àkk si ko. Mm-hmm. bañ nekkee ba léegi macha allah. zéro faute xam naa moom ku ko am. Mm. di nga am ku mën a togg. <laughs> macha allah <laughs> moom sa lan la. sama rakk la. ah sa rakk la sama rakk la yéen a bokk ndey ak baay. waaw benn la rek ñoo bokk ndey ak baay. Ah, sama yaay ba yar. ndeysaan maa ngi liir loo sama CV. ah yow loolu yëpp ku la laaj. li nga wax li soxla wu nga koy wax di ndax intéressé mm. ah, dëgg la soxna si li nga wax lépp dëgg la de waaye comme que dañoo bëgg jabar rek foog naa sama ji li mu xam ci yow wax la ko. Mm-hmm. jafewul ni am cegin dafa yombul kon nga dem cegin waaye papa nag sama rakk la sës ci man rek lu ma bëgg mu defal ma ko toppatoo ma. ku baax la diis na xolam yaatu na. Mm-hmm. tam mi ngi xool waa mbedd mi di xool waa kër gi. kon foog naa ne bu nee day takk jabar war na koo mën a yor. moo yor te ah. soxna si affaire du ay affaire poos bu diis ci xol la mbëggeel te yàlla daa dogal ne man ak papa ñu fi noo xam ne ba mu war laa yebal nga ñëw jóge dëkkoo dëkk ñëw. Ah. yaa ngi may dégg wax proposé na ma mariage accepté gu ma mm. pareegu ma waaw li ma ko wax na mënoon na la koo wax nga tayal la di ñëwaat ba fii. pareegu ma. ko wax waaye papa moom fa bu juddoo ku waye di newu fa ba mu toll ci takk jabar toog di xaar nga teg ko nee ni ku yore sa nunusu waa dëkk ba am na ñu mu mën a takk de ndax jonga ma nañu macha allah. déedéet déedéet yow mooy Eh, kii xam naa daa xam daa miinanteeg papa yebanteeg moom. mais mom. ci eh. ne na mais ya ne nga. Mm. magam la xam nga dafa rafet. ndax ñaata ngay gis ñu bëggante jigen te do gis seen kilifa ki tay kër ga sama xel day dal ndax yow li nga def ni yef ko responsable la contane nañ torop contane na ci yow torop ah. parce que wax ji rafet na torop waye cadeau yi ma fi dégg magla te lu jugee cim xel rek cam xel lay taal kii ma gis sëyagul waaye papa yabu ma. xale la. waa li muy xale moo tax waajagul si su ma demee papa dinaa ko wax nan laa naka la maa ngay dem. toogal ba ci kanam muy toog. yow yaay imbécile bu yaboo. yow yi fa yow lii mooy lan. ma dee imbécile yow ngay man kay duma vagabond yow ñàkk fi fen nag. tuuboo woon wala lan. da ngaa tuuboon mais waxoon na da ngay sëy papa. man maa taxaw sama gémmiñ nga dégg man. dama koo yaakaar. ndax boo bëggee yaa ngi ñu bàyyi ñuy wax. man waxuma leen doon de proposé na ma accepté gu ma gis nga kii ak lamu dofam yi muy kajam kajamee kii wuuru sax ma sëy foofu. yii mooy njëkk yi vulgaire yi nga sëy ñu tingom yow xamoo ñu. mais ndey am na loo xam ne gis nga soo sa ñàkk kersaak sa sa sa réewante da nga am ñoo ko war a. dama koy napp dama koy napp kii. pour lan soo sëy mu ragal. waaw gis nga bi ko duut tiit na de dama leen di wane man sa yëpp. day jéegu xorondong laa gis yow de. sama yoon nekk si. di nga yàgg dem di nga yàgg ñëwaat. ah fan laa dem benn yoon ma ñëw dem moo tax. nga may xas léegi loo may xase. dama laa xase yow yaa ngi ci toog ku nekk ci géej ay reeku la. kan man yaa si ma plâtre naa sama boobu yàgg. Ya. foo ne eh? te man am naa fu may waxee waaye kilifa ñoo xamoo ko. xamaa sëy nga wax de sëy dafa garaaw de. fi laay gaañoo. ma ne ko lem bi toq la. da ngaa fàttali ma damaa dugg rek ñu jox ma soos kaani moom laa njëkk a mëkk ba pare. wax nga dëgg ci bu bees ga waaw kay toog naa te duma jógaat. réew mi naa ñëwaat. sëy dafa garaaw de rek. man yor naa appartement boo xaalis seet ma yaa xam looy liggéey doonal taxi ma. Anda ba and jeex and ku ragal yalla mo ci gën lolo waral ñu bëgg seeni mbir faju and nañoo ak Serigne abdul Aziz Diaw yag na len ko wax borom khalima gidul lal suuf machallah allah len bant ana ñi ñak yaakar ci seeni mbir ñi am jafe-jafe adina ba yaakar ni dotul jeex ñi am galankori adina te ay ligay teg len ko daw len sété Serigne abdul Aziz Diaw yow mi nekk ci barab ñu dëkke la xex dila gasal dila sulal. Serigne abdul Aziz Diaw mi ngi ci ak lo xamni kep ku la ligay mbaamu sulal la dañu la netalil ay mbiram <laughs> budé da nga bëgg ku la dugal xalwatu Serigne Abdoul Aziz Diaw moo a ci doy mi ngi ak ay sangat yu yéeme yu doy waar kaaraange bayre ubbeeku gàllaaju kër ñàkk ab sëy ku ay mbiram am gàllankoor jigéen ju am jafe-jafe ci sa biir néegu sëy góor gu tële ci sa biir néegu sëy kuy liggéenti ay kayit ci biir réew meeg bitim réew mu tëla ticc àdduna yépp Serigne Abdoul Aziz Diaw lañ ciy waxtaanee ay mbiri mag la yor de <laughs> maa la ko wax de nga fële ca Thiès Madinatu Rahma di quartier Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi yëg ak njaaxle njàqare ci sa yaram ngeen mën koo jot ci 77 560 71 87 63 wala 78 469 92 92. lu fay xew appartement de lu fay xew. fay ñoo gën mus ñoo. Ndeye Ndiaye Fatou Kiné ah ah ah, ah ah ah dañu foog ñoo gën mus ñoo. Ndeye Ndiaye Fatou Kiné balafa nñom nñak fakkini di barante du citellugin